constitution ne peuple boobu am na droit résister résistance boobu laa leen woo nag bu leen ci am lu ngeen ragal ndax lii weesu lii am ci weer wi ñu nekk weer wi ñu génn muy weer juin jàngat yu bëri lañ ci war a jàngat may dalal xelu Sénégal yëpp rawatina ndaw ñi Macky Sall amatul sañ-sañ li muy def discours dajale ay mer di wax loolu foofu la koy waxee de